parce que président de la république jël ab général nommé ko attaché militaire ca New déli nga xam ne ci réew mu mag la Inde ku ko xam xam ne réew mu maaga maaga mag la yow ñu yóbbu la fa bu dee dañoo jàpp ne daa xarañ kay ba yóbbu ko alhamdulilah mais yow koo xam ne yow dañoo jàpp ne Sénégal dafa am coopération militaire bu muy développé ah ba tax mu bëgg vraiment jël ponkal nee nañ gars yi nee nañ daa aay mais ku aay lan foo réew parce que Inde du réew mu ndaw loolu kay baax. mais réew moo xam ni dañoo bëgg a développer ay relation yoo xam dafa dëgër ak moom def coopération militaire ak moom mais doo jël ab cuuna di ko fa yóbbu moo tax ñu jël ko xarañ yóbbu ko fa man Kandé daa aay moo tax ñu yóbbu ko fa yóbbuñ ko n'importe où et puis le président de la république quand même di nommé aux fonctions civiles et militaire moom Macky Sall bi muy jël moom kande mii tey bi ko Macky Sall di jël di ko cumuler ñaari fonction yoo xam ne yeneen moroomu généraux ñi ngi fi d'abord promouvoir ko rapidement parce que ku xam ne loo ñàkk-ñàkk xam-xam ku ne xam na ni colonel boo ko nekkee pour nga nekk général dañ la koy tabb pré euh, président de la république moom mooy jël décret def la ko kon président de la république moo lay promouvoir au grade de général en tant que colonel waaw moom mii bu ko président Macky defalee loolu promouvoir ko mu nekk ab colonel mu jël ko ci position colonel jël ab décret defal ko mu nekk général moom Souleymane Kandé bi mu ko defaree mu nekk général mu fekkoon fa ñu ko jiitu ci général gi ñu ko gën a ñu ko njëkk a ñu ko njëkk a euh, takk gratu général mu fekk leen fa mu fal leen ci seen kaw jox ko mu jiite armée de terre bi maanaam généraux ya fa nekk yépp mu nekk ci seen kaw waa léegi bu Macky Sall mënee def loolu teg ca sax jox ko beneen unité force spéciale moom moom moo koy jiite boo xam si ndombay tànk bu mag a mag a mag la mu jox ko ñaari ndombay tànk yu réyee noonu ci koo xam ne ñam fa fekk ñoo ko jëkk a tapp tapp ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ko jëkk takk gratu général wala léegi Macky Sall bu mënee def loolu léegi ndaxte sañ-sañam la constitution moo ko may loolu wala léegi loolu mu def ko fi généraux ya fa nekkoon muñ ko ni ñoom amuñ ci benn problème parce que président la république am na sañ-sañ bi li président la république beneen ñëw fi moom it jël a beneen général moom jox ko ndombay tànk yi jël kii jox ko beneen euh, euh, beneen euh, responsabilité boo xam ne jàpp na ne foofa la ko la ko wóolu mais où est problème moo tax may rafetlu le colonel Abdou Aziz Ndaw li mu wax tey ci suba ma dégg ko mu wax muy wax ci rafet mu ni ay ruubekat day ñooy wax xam naa ni dafa bëgg a attaquer décret bi moom moom la le général kande ne parce que man déggaguma fenn mu wax ne moom ci boppam ci kàllaamam mu wax ne da koy attaqué dégguma ko fenn ba léegi ay waxi kasaw kasaw kasaw rek laa ci dégg ak ay manipulation ak ay manœuvre mais mu ni même bu ko attaqué du ci am ndam ndaxte yaa a aucune illégalité dans ce qui s'est passé amul lenn lu lu Bassirou Diomaye fay def loo xam ni jalgati na yoon kon li mu def yoon moo ko may moom mooy seet ku ko neex mu mu mu mu tabb ko ci post bu ko neex aux fonctions civiles et militaires maanaam lépp loo xam civil yi ak militaires yi ñoo ko yore ci ndombay tànk Bassirou Diomaye fay am na sañ-sañ dàq ka fa ne fal ku ko neex kon nag loolu mu leer ci bopp sénégalais yépp benn problème amu fi fii am na fi ay colonel yoo xam ne bañ nekkee colonel léegi kenn xamul kañ la waroon a takk grade général ci nguuru Macky Sall takkuñu ko ba ni Macky Sall deme te Macky Sall jël ñeneen ñoo am ñoom ñoo ko ñoo leen jëkk a nekk ay colonel def leen ay généraux te ñoom kaasuñu defuñu dara am na ñoo xam ne dañ leen a yóbbu ci ay post ca bitim réew am sax ñu jàppoon ni li leen def peut-être sanction la mais ñoom dañoo dem exécuter parce que boo nekkee ci réew un fonctionnaire nga nekk civil walla militaire bu ñu la joxee responsabilité bu mën a doon dangay dem exécuter ko Macky def na fi nju njuuj njaaj bu ko neex ci civil yi ak ci militaire yi écarté fi yóbbu yóbbu fi frigo ñu bare man xam naa ay cadre Pastef yu baree baree baree baree bari ci ministère yu baree baree baree bari ba ci ministère de l'éducation nationale ministère ministère de la santé ministère euh, de l'économie et des finances euh, ministère des sports ay ministères yu bari yoo xam ne ay cadres yu mag ñoo fa nekk ay civil ñu jaay leen doole mettre leen au frigo te kaasuñu ko fenn parce que Macky Sall amoon na sañ-sañ en tant que président de la République mu fal ku ko neex au fonctions civiles et militaires def ko également ci armée bi man sama table bii am naa fi ay euh, commandant boo xam ni euh, dañ ko jaay doole dàq parce que tout simplement dañ ni dafa jege dafa jege Pastef parce que dañu sentir ni daal ni muy xalaate Pastef la jege xam naa fi ay gendarme moom leen a rajee ñi ngi fii am na yu ma ci wone sax ci sama live yi ma daan def wane naa fi ay gendarme yoo xam ni dañ leen a wone euh, dañ leen a dañ leen a dañ leen a dàq rajee leen général Moussa Fall moo leen rajee te defuñu dara lu dul def seen liggéey ñu des fois ñu mën a def peut-être même sax une faute mais une faute légère ñu profitoo ca daan ñoo dañoo jege Pastef nañ leen leen dàq yooyu yëpp def nañ ko fi te benn benn problème amul donc encore une fois le président Bassirou Diomaye Faye amul lu mu def lu tax tappalekat yu mel ni ay Madiambal Diagne ak ay ay Mamadou Ibra Kane ñu nekk fi yëkkati seen làmmiñ di tappale ñoo ñu tamit bu ñu fi waxee lu ñu war a wax nañ leen leen dugal ci kaso bi buñ leen yërëm ñooñu ñëpp ci kaso bi lañ leen war a tëj gis nga fii mu ñu fi nekk ay nit ñu buccetiku di wane ay reewande ah nekk fii di jéem a attaquer ci ay waxu caaxaan ku bëgg a opposé wu nag am nga droit opposé wu aussi c'est clair il faut pas aussi ñuy def dans l'amalgame ñun on veut que les gens parce que ki ni man bugguma kenn transhumé ku nekkoon ca beneen boor bi nekkal opposant dem leen ci mbedd mi boo defee loo wata def nag nga ñam ci lacrymogène yi parce que tamit opposant yenn saa yi mu la ñam ci lacrymogène yi parce que bu defee loo xam du yoon dégg naa nag bañ demee di jàppale Bah Diakhaté bi lacrymogène yi jógee rek ñoom ñëpp danoo daw danoo sàqi dégg naa ñoom ñëpp a daw am na sax benn saagakat boo xam nee na moom bi mu ko ñamee rek la ni bàyyita moom dootul waxati dara ci Bassirou Diomaye Faye ak Sonko léegi mi ngi jéggulu waaye dégg naa gaaye booba lañ départ ñii sànni seen i dàll fële ñii sànni seen i dàll droite ñii gos ñoom ñëpp ñu daal di sàq dégg naa benn lacrymogène dong lañ fa tiire alors que ñun ay lacrymogènes yu bari man nag damay wax lacrymogènes yi quand même yi nga xam moo des ci kees yi bu ko kenn mayee nañ ko utiliser c'est important ñu utiliser que gars yi xam erreur yi ñu fi defoon aussi mais buñ koy utiliser aussi na jar ñu ko parce que tamit effectivement. Euh, maintien de l'ordre day am ay lacrymogènes yenn saa yi boo xam ne da ngaa def loo xam waroo ko def mais jàpp naa ne ñoom bu ñu opposé woon normal sax la kenn leen ci vraiment ndigal ñu def parce que nag man jàpp naa ne bu dee dañoo bëgg a marche wala dara bu ñu déposé gars yi surtout que koo xam ne buy marche mënta def fanweeri nit am na ñoo xam bu ñu wootee kenn ñëw man opposition ban man damaa xamul sax bala ñoo wax kuy woote léegi kan mooy jiite xam nga mbooloo foog am ku jiitu jul de bàyyi jiitu wala kan mooy jiitu non ça il faut ñu wax kan moo jiite opposition bi kan. kan xanaa yéen da ngeen samp seen um mais mais xanaa da ngeen samp seen mbër ni kii moo ñu jiite mais yow taxaw rek di wax ay nit saaga leen mais <laughs> buy saaga mais euh, pour pour pour bu wut lan boo saaga ba pare léegi après pour pour pour pour mu jariñ lan. xanaa da nga ne kii kay ñun bi ñuy opposé wu danoo wax ne Ousmane sonk mooy sunu mbër léegi nag ñuy xeex pour jox ko nguur gi yéen kan ngeen di xeex pour jox nguur gi. mais bu fekkee ne dañ fay bëgg a taxaw di def manipulation comme ce qui s' est naan confidentiel Afrique ñu ne confidentiel Afrique confidentiel Afrique dafa wax ni Ousmane Sonko ak euh, Ousmane Sonko ak euh, général Kandé danoo jàppante loolu moo tax Ousmane Sonko jëlee ko fi Ousmane Sonko mooy président de la République ba fi jëlee général Kandé décret kan moo ko signé président la République ñii duñu ay tappalekat da ngeen a kàcca kàcca kàcca kàcc kenn ki moom daa kàcc ba ñuul kukk moom. mais cest à nan la nan ngeen di wax ni président euh, euh, premier ministre moom moo fi jëlee moo fi jëlee euh, moo moo moo moo fi jëlee Kandé mais nan la ko fi jëlee te moom du président de la république décret président de la république moo koy signé léegi ngeen ne ngeen dem kàcc seen i kàcc daan ne léegi Ousmane Sonko daa jàppante ak le général kànde ndaxte Ousmane Sonko daa bëggoon a def ay réformes au plan militaire léegi après général Kandé d'accordu ci tappalekat ngeen tappalekat ngeen. d'ailleurs Confidentiel Afrique weddi na ko def na communiqué Canada Confidentiel Afrique def na communiqué wax ne loolu waxu ko ka ay nit ñoo dem bind ko amul source wax ñu kan moo ko bind loolu rek sénégalais yéen war na leen wan ni ñi ay tappalekat lañ ay caaxaankat lañ dem di jël tout Confidentiel Afrique di journal boo xam si bu am réputation la bu nit ñi weg lañ nga dem bind sab article bind leen ca pour mani mën a manipuler l'opinion mais yéen da ngeen xamul ne sénégalais kenn mënu leen manipuler. bu ngeen yaakaaree ne mën ngeen a manipuler sénégalais yi da ngeen nax seen bopp dama ni ñàkk ngeen nguur gi dem leen toogi nee seen waxu caaxaan yii mun leen a fexe ba manipuler fi sénégalais yi général Kandé kenn defu ko dara leen ko jox responsabilité bi ñu ko jox rang de ministre la pour ñu leeral ko sénégalais yi général kande kenn nangul postam pour ñuy nëndamal xelu askan wi le général kande a justement été affecté dans un grand poste à New Delhi nga xam ni képp kun fa affecté mooy jox nañ la cër kenn suufeelu ko kenn ñàkkalu ko fayda parce que poste bi ko jox rang de ministre la muy am les mêmes avantages que les ministres ñu dem jox ko post bi kon nañ bàyyi caaxaan yi seen tappale yii ak seen ruube yii ñu nekke ñoom waa système bii fi jóge ça ne va pas prospérer duñ leen bàyyi nag xam nga ñun dañ ne woon ñii amatuñu seen jot man bokk naa ñu waxoon ni man ñii amatuma seen jot mais nag jàpp naa ne yenn saa yi ñu ñu génn leeral seen tappale yeeg seen caaxaan yi kon ma ko benn femme waxee keroog ca Londres ne ma dàmbuj bu leen toog di seetaan ñii ciy tappale la ñuy xëy ci la ñuy gont yenn saa yi na ngeen génn ngeen leeral parce que su ngeen dul leeral am na yenn sénégalais yoo xam ne bari wuñ nag xëy na yoo xam ne mën nañoo lëndëmal seen xel yi fii nag lëndëmal xel du ci am Mamadou Ibra Kane dóor katu marto Madiambal Diagne dóor katu marto yéen ñëpp c'est parce que système bi ngeen àndal ànd ngeen ak seen seenu mbër yéen ñaar ñooñ ñëpp amato Diouldé Ba ngeen àndaloon ànd ngeen ak amato Diouldé Ba dem na élection gagné nañ ko wulli nañ ko wulli yu metti mais ànd leen ak moom ngeen opposé wu mais bu leen fi nekk di jéem a ruube ak di wax da bëgg a bëgg a teg seen wax ci ay sos ak i nar ça ne passera pas te man li ma gëm mooy ñoom ñëpp ku ci wax loo war ta wax nañu leen leen dugalaat ci biir kaso bi gis naa benn groupe de presse boo xam moom la mu bindoon gaaw na dem dindi ko ci sitam <laughs> ñaw gaaw nga koo dindi de cey boo ko yeexee dindi ci kaso bi lañ leen ñoom ñëpp dañuy dem tëj seen groupe de presse yi ñoom ñëpp parce que fii réew mi duñ nangu kenn di di fi jaay reewande ñun comme on a dit y aura pas d'arrogance arrogance sénégalais bugg ko te ñi xam ñooy jiite réew mi ku leen xam-xam leen ci dal duñu wax yëkkati seen kàddu Ousmane buy wax kàddoom du jóg Bassirou Diomaye Faye la même chose parce que dañoo respecté sénégalais yi wekk sénégalais yi mais nag wekk sénégalais yi mooy jël seen responsabilité fii du ñu fi nangu kenn dafi jaay reewande on n'acceptera pas que parce que tamit nguur aussi moomul faiblesse cest di bàyyi nit ñi ñuy def leen neex loolu tamit bu ñu ko defee sénégalais yi duñu ñu duñu duñ ci d'accord sénégalais yi bëgguñu ñu jaay doole kenn mais sénégalais yi tamit bëgguñu mu am laxisme laxisme mooy bàyyi ku nekk mu def lu ko neex loolu du fi amee fii ku fi wone ak reewande di fi saaga nit ñi ak di jéem a jalgati defa ne dara du la ci fekk dangay nax sa bopp l'État restera intransigeant waaw parce que képp koo xam ne def nga fi loo wut def dañ lay teg ci yoon waaw loolu mooy dëgg kon euh, les patrons de presse là yi may gis ñuy jéem a tappale ñoom ñëpp il faut ñu xam ni réew mi dafa soppeeku ñoom ñëpp li leen metti mooy lañ doon am ci nguuru Macky Sall lañ amatul tëdd muy dox jeex na fii kenn lañ fi dul jox benn moyen nguur gi jël alalu sénégalais yi di ko séddale ay journalistes ak di ko séddale ay chroniqueurs ak di ko séddale ay nit ñu tekkiwul dara pour que ñuy teg taxaw di xalamal nguur gi loolu jeex na fi. Bassirou Diomaye fay du ko defal ku ànd ak moom du ko def ku du ko defal ku àndul ak moom loolu pour mu leer alalu askan wi dañ koy delloo ci askan wi li li ñëpp bokk ñëpp gis ci seen bopp mais duñ jël benn groupe bu ndaw ñu nekk fi di def ay manipulation bus bu nekk ñuy def seen i titre gis ngeen revue de presse yi kon ni ma ko daan waxe ay jamono commencé waat nañ ñoom ñëpp parce que lañ daan am amatuñ ko ñoom ñëpp actuellement ñi ngi taxaw ku ci nekk di wax di ŋàññ nguuru président Bassirou Diomaye Faye nga xam defagu fi lu dul ñaari weer ñoom ñëpp parce que lañ daan am lañ amatul ñoom ñëpp loolu moo leen metti lañ doon am nag jeex na xama léegi lu fi am ku bëgg a jaay sab journal xama looy def dangay ngay wuti ay journalistes yu xarañ ñuy bind lu leer article yu neex yoo xam dañ koy teg ci dëgg sénégalais di daw di ko lire ñu nga nga am xaalis. nañ ni ay militant dëgg la ñu am. maa ngi def silence rajo mais trop c'est trop aussi. salaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh.